ñu jógee euh, hmm. ni Ahmed Khalifa Niass dama bëggoon dénk sama bopp. dénk mbokku euh, téléspectateur Dakar People. que dossier judiciaire boo ci xamul lu bari. Hmm. danga nga ciy maanu. waaye nekk di def ay réquisitoire sévère mel ni un procureur la République. wala di joxe sax verdict mel ni président tribunal correctionnel euh, xaru la ndax àq dafa gaaw dafa sew bàkkaar ci àq boo amal sa moroomu doomu aadama bokk na si suñu borom gën a rëbb ci xeetu bàkkaar yi Seydina Mohamed laaj nañ ko jullit mën naa naan sàngara mu ne ah mën ne mën naa euh, def lii mën naa ne waaye fen mu ne dee jullit du fen kon moo gën a garaaw ci xeetu bàkkaar yi fen rawatina ngay fen di yokk tilimal deru jàmbur di yàq honneur doomu jàmbur baaxul boo ko yéenewul sa dërëm noppil te maanu ci li tax ma wax loolu mooy dama bëgg a leeralaat ni Taïb Socé du jaaykati or comme ni ko nit ñi di waxee Taïb Socé du jëndkati or Taïb Socé dafa nattu bi ko dal daf ko dal dans le cadre d'une activité bu ñu tuddee intermédiation dans le cadre d'une transaction commerciale sur l'or maanaam da doon dox diggante kuy jënd or ak kuy jaay or léegi nag ki diggée ne dana jaay or non seulement ba fi may wax gi yéen livré wul un gramme d'or waaye ba mu encaissé cent quarante six millions yi dafa ne bëxër ñett a daw ñee ngi naan mu nga Gambie ñi naan mu nga Mali daal di bàyyi Taib Socé bi doon dox diggante bi bàyyi ko ci jafe-jafe yi mu ne te li ko dal noonu mën na ma dal mën na dal eh, Aïcha mën na la dal yow mën na dal n'importe qui donc Taïb a été victime de sa naïveté et de sa bonne foi ce ne pas autre chose boo gisee bi ko yoon tegee loxo depuis le 15 juillet ñun ñu toog ba le cinq ñu doog réagir maanaam dix jours c'est que Jamra comme d'habitude rek dañu doon jël le temps creuser dossier bi waaye bu ñu demoon ba gis ne Taïb dafa njublang nit qu'il a escroqué des gens def abus de confiance dañu naan wëlbët dem toppatoo ji leneen. waaye dañu dem ba ci biir gis ne qu'il a été victime d'injustice moo tax nag ñu daal di jóg dem quartier euh, sëñ sëñ Mansour si euh, Tëngéej seeti njabootam heureusement nous avons été bien accueillis te ba ma fay dem dama àndoon ak seede mu di imam euh, El Hadj Aliou Dia le président exécutif de Daaral Quran Walx Ilsan nekk en même temps le directeur de la coopération Euh, internationale au niveau du conseil départemental de Rufisque ñu dëfal njaboot gi bref ci gàttal euh, am nañu ñoom seen accord pour ñu organiser benn fundraising mu di benn opération de collecte de fonds nationale euh, élargie au niveau de la diaspora ba ñu joxe accord ñu ne ah c'est pas que dañu leen doyadal waaye ñun dañu bëgg seeti ndey mbili gi pour dégg ko ci làmmiñu boppam mu joxe accord am alors ñu jege fa dem tribinal am suñu kayit juge bi jox ñu kayit ñu daal di dem seeti Tayib soose Tayib day nee na vraiment mënoon ngeen sax bañ a ñëw ndax man Tayib soose ak yéen Jamra suñu coloré yàgg na ça fait plus de vingt cinq ans ma ne ko waa ah, je waaye dëkk bi moo yàqu am na ñoo xam ne du dimbali nit du xettali nit du ñu taxaw ku sonn waaye seen métier. mooy fu ñu dégg ne nit a ngi dimbali nit rek ñu saaga la saaga ngay dimbali moo tax il ma fale ñëw ci yow am sa accord alors bi mu ñu joxee accord am nag ñi jege fa man ak ki ma tudd léegi euh, imam euh, El Hadj Aliou Dia ñu daal di euh, def ay contact média voilà pour annoncer ne dañuy créer benn comité de soutien pour la libération de Taïb Socé qui a été victime d'un escroc sans foi ni loi alors léegi nag ñu jàpp ni euh, am na de très bonne volonté yu ñëw yu demee nii Cheikh Fadel Gaye di oustaz comme moom oustaz Adama Mbuub dal di ñëw ñu ne nag léegi il nous faut oustaz Iran Ndaw ndax yàlla dogal na comme ñun ñëpp ñu ko seet seet seetloo ci télé bi mu nekk di Sen TV am na fa expérience en matière d'opération de collecte de fonds euh, dans des buts euh, humanitaires gis nañ ay borom yi diabète ay mu goitre ñu war a leen opérer mu laaj xaalis te fekk c'est des familles pauvres et démunies Iran taxaw ci taxaw bu rafet ba rassembler les sommes ñu sauver ñooñu ñuy sauver alors ba ma ko woowee mu rafet rafetlu jokkoo bi ne ma nag ah man ah il fut un temps bëggoon naa ci dugg mais Iran euh, oustaz Taïb Socé moo ma freiné ne ma dama bañ nga collecteel ma de fonds remboursé ma mu mel ni indirectement Euh, que comme que fay naa kon indirectement nangu naa ne maa jël te man jëluma Iran nee na loolu moo ma téyewoon ma ne ko amee ñun wax nañu ak moom d'accord na mu ne waaw mettre ma en seen wax waaye dama bëgg a làmmeñam ak sama nopp direct alors ñu daal di demander imam Fadel Gueye ak euh, oustaz euh, Moussa gars yi daal di dem comité bi yónni leen ñu daal di dem fële ci prison daal di demandé Taïb Socé pour mu woo Iran daal di jël numéro bi jox ko ko alors le lendemain ñuy woowaat Iran Iran ne ah alhamdulilah léegi am naa feu vert Taïb woo na alors ci la ñu constitué nag un large comité de soutien pour la libération de Taïb Socé Bougane on ne le remerciera jamais assez daal di ñu may temps d' antenne bu yaatu te xam ngeen temps d' antenne dafa cher. gis ngeen la période de pré-campagne am na ay candidats yu fi defoon ay live une heure de temps courte rek deux millions te comité bi amul moyen boobu on, on l'a créé ça fait à peine une semaine alors donc Bougane may ñu pour le premier téléthon de du samedi premier mu may ñu de neuf vingt une à vingt deux heures trente rek ñu récolté quinze millions cinq cent alors ça nous a, ça l'a encouragé mu mayaat ñu beneen téléthon mooy bii passé le samedi sept ñu tàmbali ko vingt deux heures à vingt trois heures trente on a rebondi de quinze millions cinq cent à soixante dix huit millions te fii may wax yow am na ñoo xam ne ñu ngay joxe parce que y a un certain nombre de numéros de téléphone yu ñu affiché ci média yo ma profité tamit di ko jàllale ci Dakar People euh, yooyu yëpp euh, Iran Ndao moo koy gérer kon ku am dimbal boo bëgg baaxee euh, Taïb Socé Euh, mën nga ko jaarale ci transfert d'argent yi parce que am na ñu bari ay euh, virement bancaire c'est un compliqué pour eux waaye mën ngeen jël transfert d'argent bu la neex Orange ne euh, mais par code parce que Orange Money direct plafone na wala bokk nga jël Wari wala jël numéro yi boo ci jël baax na le 77 012 40 ah boobu boobu wóoraguma <laughs> da ngay def 77. 310 95 86 waaw boobu moom wóor na ma mais bële dama bañ introduire gars yi en erreur. alors yooyu 42 voilà mu ngoog da ko amoon. voilà boobu tam baax na euh, boo leen ci woo rek di ngeen jot Irando moo koy mooy centraliser collecte de fonds yi alors euh, bu boobaa nag li ngeen yónnee ku am mille francs yónnee ku am 5000 francs yónnee ku am 100 francs yónnee ndeysaan am na ci seen yu daw yaram benn xale bu amee asthme. mu nee na mu nga doxe doxee waay ba Sen TV pour ne la modique som de cinq mille francs ñu ne ko lu tax paasuloo ci mu ne su ma si paasee dafay toj daal te dama bëggoon indi cinq mille francs net ñu ne ko ah tax mu ne ndax Tayib Socé moo tax man bëggumoon di woor woor du sama affaire euh, julli tamit dama ko sàggane woon kon Tayib soose moo ma dugalaat ci diine ji alors euh, am na seen yu daw yaram am na benn euh, waaye boo xam ne tuubeel la Euh, nekkul woon jullit si leneen la nekkoon tey moo ko tuubloo moo ko dugal ci diine ji. donc euh, ak ay chauffeur de taxi yoo xam ne dañ fa ba dégg affaire bi rek euh, ñëw joxe seen contribution et cetera alors donc kon téléthon baa ngi continuer ci numéro yooyu ma wax alors 77 310 95 86 ku ci joxe rek. transfert d'argent bu la neex dina si jot alors ci biir loolu nag am na ñoo xam ni joxewuñu yërëmuñu Tayib Socé euh, nañ ñu bàyyi ñun ñi koy yéene jàmm yéene ko suñu dërëm ñu dimmali ko waaye nekk ci réseaux sociaux yi te li ci gën a garaaw naan sariya àndu ci daal di ko xaramal daal man jàpp naa ni euh, bu dee dañ ko xaramal yow nee nga yaay suñu professeur nga daal di joxe référence bu dee ci alxuraan la yàlla xaraamal ku fayal nit bor nga nañu ah aaye sàngam saar sàngam lii la suñu borom wax bu dee addis la xam nga addis boo gis dee am référence dañ naan addis bu ñu jëlee ci Buxaari wala addis bu ñu jëlee ci muslim bu ko defee nga joxe référence loolu bu ko defee man maay jëkk a démissionné Jamra mooy jëkk a démissionné du comité de defence de du comité de soutien pour la libération de Satta Wisso ndax duñu du ñu dugg lu yàlla àndul waaye jékki rek ne sare àndu ci c'est trop facile deuxième euh, tontu ci loolu suñu borom dafay hiérarchiser ñi nga xam ne ñoom ñoo yelloo ndimbal ñi nga xam ne ñoo yelloo azaka daf ko hiérarchiser bokk na ci je cite dans le désordre les fuqara les masakin les misk les les les pauvres les indigents les euh, jatour veuves yi euh, jirimi orphelins bokk na ci maladie bokk na ci itam boroom yi bor kon ñooñu suñu borom lim et j'ai cité dans la désordre suñu borom ne ku jël sa dërëm dimbali leen malaaka yërmali dañ la bindal yiw boo xam ne jege na yiw ba ñu bindal ña daanu ca toolu xare te doon defendre drapeau l'islam bo liim na borom bor Taïb Socé borom bor la wala du borom bor bor la doontele bi moom mooy njublan waaye ki njublang il s'est servi de Taïb Socé nax kooku livré or lekk xaalis daw kon bor boobu ci loosu Taïb Socé lay gàllu Taïb est victime d'un escroc sans fois ni loi ñu teg ko bor bu injuste yow ngay jullit ni moom yërëm ko sukkandiku ci li yàlla wax ne ku dimbali borom bor dinañ la bindal yiw ak yool wu rëy rëy nga ci sa dërëm jox ko ko yaa ngi koy libéré yaa ngi mel ni kuy goreel jàmm parce que euh, dette c'est une forme d'esclavagisme ndax dootoo libre la preuve mu ngi nii borom bor baa ngi koy pamti pamte n'est-ce pas d'une juridiction ay une autre ba mu ngi nii dooraat nañ ko contrainte par corps caabi féete na ginnaaw kooku boo ko xettalee mu génn jotaat dignitéem dellu ci njabootam dellu ci liggéeyam sowe nga ko waaye yow nga jóg ne loolu xaram <laughs> kon lan moo dagan léegi <laughs> voilà kon nag ñu ngi dellu di ñaan nit ñi rek dossier judiciaire ku ci xamul dara maanu ci tey soose ku ko yéenewul jàmm ku ko yéenewul sa dërëm ñu ngi lay ñaan nga noppi te nga bàyyi ñi ko yéene jàmm yéene ko seen dërëm ñu dajale seeni dërëm ak seeni i dépense ak seeni i euh, ya ñu foraatu ñu dajale ko jox ko tribunal mu feex mën a dellu ci liggéeyam di baaxe askan wi xaala laahu di baaxee askan wi xaala rasulullah ndax loolu lañ ko ma a xamee tey soo si su euh, kii euh, waa TFM ñi ma ci gën a yàpp parce que ku caa yàpp naa ko mm-hmm. ma ne ko eh, yéen. Taïb foofu la daan liggéey Bougane Gueye daane ñi Taïb liggéeyu fa may nañu ñaari téléthon te bu ko neexoon facture ñu temps d'antenne bi wax naa leen sànq ne une heure de temps rek la règle générale deux millions la moom may nañu benn yoon une heure trente minutes mooy le premier samedi le sept bi mu jox ñu deux heures de temps ndax ñu ngi ko commencé vingt deux heures dañuy pare presque minuit jot na yemul ci loolu employé yi ñi nekk ci grand cœur cotiser cotiser ñii seen dix mille ñii seen nangam ñu am cinq cent mille joxe yemuñ ci loolu Bougane jël un million ci poosam joxe Bougane yemuñ ci loolu deuxième téléthon mu jëlaat deux millions joxe ba téléthon bi di bëgg jeex mu joxaat un million du quatre millions te liggéeyu foofu te TFM lay liggéey alors ma am ñu ma ci xam soññ leen alors bañ ko defee Kouthia ne ma waaw man am naa cinquante mille ma ne baax na yónneel buuba ne ma man dina joxe un million ma ne ko mën naa ko annoncé maa ngi nii en direct mu ne annoncé ma daal di ko wax Iran Ndaw Iran annoncé na ko ne buuba joxe na un million ñu toog tuuti doomu Youssou Ndour def lu rafet buuba yónnee cinq millions te moom euh, nekku fa def ay promesses on a des promesses de dons yoo xam ne bari na buñ koo defoon moom tey dina am cent yi ba am lu mu yóbbu def ko dépense waaye moom dafa yónni benn waay bu yor moto mu def ko ci mbuus Iran teg ko ci taabal bi tekki ko mu nekk cinq millions ñu compté ko muy cinq millions donc personnel bi vraiment ñu ngay góor léegi nag neewoon naa buuba parce que defoon naa benn émission bu yàggul ak moom xëy na seetaan ngeen ko te ñu koy wax tour avec eh, nee naa ko nag na nga wax Youssou Ndour mu góorgóorlu waaw moment boobu nag Youssou dafa tukki woon waaw nee na bu ñëwee dana am lu mu def voilà kon ñu ngi gërëm ñi ci dugal seen dërëm yëpp di gërëm ustaas yi di ñaanal fan wu gudd Iran ndaw ndax moo tax téléthon bi am sa sa cette sa sa d'énergie di ñaanal tamit ñi nekk ci comité bi particulièrement ustaas euh, Cheikh Fadel sonn na lool lekkatul naanatul Adama Mbuub ne ko danduma ustaas Moussa ne ko danduma di masalu coono euh, euh, sëñ Cheikh fal ustaas la bu nekk Touba moom tam foofu sa Touba mu ngi fa def liggéey mu mucc ayib te di masalu coono tam ay soxnaam soxna maam Jabu Sàmb soxna Aminta Diouf wax ñoom itamit ñu ngay jaabante rek tëngéej ak rëbës dafa metti eh, ñu ñaan leen nañu toog rek bàyyi ñoom bàyyi bàyyi ñu ñun ñu egg liggéey ñoom daal xëy na mën nañu xëy di awante yóbbu añ bi te defe naa ñu ngi koy def nañ yem ci loolu rek waaye daal coono ji nañu ko bàyyi ak ñun ndax ku nekk ci ñun eh, boo waxtaan ak sa njëgeenaay seet sa diggante ak sa borom mm. au moins une fois dans ta vie Taïb Socé sur ses trente ans ou trente cinq ans de carrière mm. de prêcheur au moins une fois dans yi vie Taïb ji na la benn xaala laa wala mu ji la benn xaala rasulullah boo xam ne am na lu mu dëgëral ci sa imaan am lu mu dëgëral sa tawxiid kon nag occasion ñëw na pour fay ko borom rawatina ñun jullit yi ñoo nekk ci gàmmu yi di fëgg suñu dënn i mu'minuuna ixwa jullit yi ay mbokk lañ d'accord waaye nag am na jullit bu am problème rawatina dañ ko tooñ c'est l'occasion mbokk googu ñuy woote entre jullit ñu jëfe ko lu waaye am rek def ci voilà